original original pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. Sénégal ka fay kan ngi yegg na fay say facture moo ci gën a gaaw. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yépp ñu consommer ko. nangu naa mm, mm, mm. waaw jàng bu rëy dafa nangu naa daam ah, seen ndax combat yëpp ci xeex ak bëri la débuté mais saa yoo déggee ñu ne Modou Dia jàpp na ngeen bara dugg na ci friction bëri te dama gis double moteur mbër la nag bu ma fonk double moteur ndax doole mais Modou Dia euh, double moteur bu fekkee yaa ngi may seetaan combat garde ngay bëre ak combat boo xam ne waroo cee yéex te double moteur war a bëri Modou Dia te jàpp ngemb Modou Dia Modou Dia war koo njëkk a jàpp ngemb. sob sàppale ma tegale ci. yaakaaroon ne Modou Dia day ñëw ma tegale ci soble. xam nga tax loolu. ma tegale ci soble sàppale wala wala ma doxal. même tuuti ma ñëw xam nga tax loolu. jërëjëf Modou Dia mën naa attaqué ki nga xam ne nii mooy double moteur. Hmm. waaye déglu baax li ma lay wax Modou ja saa yoo ko dirigé ci làmb day teg pèse. Hmm. saa yi la dirigé ci làmb xeex mu lay woo gëmu ko bëri lay bëri mooy problème am. Hmm. ndax day mbër boo xam ne gis nga yàlla du may lépp ci làmb moo li yàlla may ci làmb mënta ànd ak bayre nekk ci moom mënta ànd ak bayre ay qualité yoo xam ne nii finition ci am stratégie léegi mhm. man dama koy tegal benn système boo xam ne balaa maa ñëw ci mot ja double moteur combat bi ñett yi daf ko war a bañ benn combat bu mu war a bëri garde la warta yéex ci combat bi mot ja war a ko njëkk jàpp ngeen hmm. xeexu mën naa ba du bañ am na système boo xam ne bu ko tegee Modou Dia sax mën naa yàq làmb Modou ja waaye ni mu koy defee mooy benn Modou Dia saa yoo digg ñu ne ab bi na lii ma la wax bindal day diriger double moteur bis bu diw bul ko ci lewaat diw ko ci xeex dina ko diriger ci bëri te dañ leen a ñoom ñaar dañu bokk benn adversaire en commun muy kat bu leen weer Mamballa Mamballa noonu mm-hmm. ci nan la leen weeree daf leen weer daf leen dikk seen mën dama nekk seen mënin. loolu loolu sàppali man la xaaral ma tegal la ci soble. ñëwal. ñoom pour pour man ñoom ñaar kenn wartu umpanteeg sa morom mooy dañu bokk benn adversaire bu leen mos ñoom ñaar ñëpp daanee leen ci même façon bi mu leen daanee mooy ërtal sëkkatal dóor ba nga ninga la. ërtal. dóor ba nga ni nga. est-ce que euh, euh, kële Mambal dafa ërtal double moteur. xeex bu metti da ko dóor ba double moteur. Ah, góor bu fekkee ko ginnaaw wër ndomb waaw mais di ko dóor di ko boo déggee mu wax la loolu. waaw allez boo déggee ma wax la loolu rek pour relancer la. xam nga double moteur ak euh, Mambal la. Uh-huh. double moteur moo kor Mambal la. Mm. di ko dóor ba Mambal la. xaw a kaw a dëbu di dolli jiwaat benn arrêt gauche arrêt ba romb mam balla ko gis ko mm. daw wër ko ndomb fekk ko fa ko léegi léegi xam nga lan mooy mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. boobu sax la wala Modou Seex Ngiraan non Modou Dia sax Malaw Seras moo gënoon garaaw Iba Mar parce que keroog koo amoon looy teg ci billaay man de su ma leen indi du ma nangu kenn ñu njëkk laa jël mais ah. ñoom ñaar ñëpp seen combat foot bi première foot mooy bul nangu sa morom. mais mais mais Fada man lenn rek laa ragal. waaw man bëgguma loolu. du ma dafa bëri bu muy indi te des fois man du ma plaire. waaw mooy du ma du mbër mu mën a jël ay responsabilités. il est trop calculatrice. Double Moteur li bu muy calc dafa ragal gàcce quoi en fait. Mm-hmm. parce que Double Moteur fait partie l'un des rares lutteurs yoo xam ne ci diggante. mën a xam ne biir Medina ndax rëbës Medina la bokk. xoolal waaw. Ada ah, di fa jugee. waaw kay. Diène di fa jugee. Bébé Diène di fa jugee. Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye di fa jugee. dafa xam nga mën a boot mbooloo mu mel noonu. mu jugee rëbës. Diour Moto dafa am lu particulier dafa am combat bi ñaar yu ma ci jàng. Mm. mooy bi ci njëkk. damay gis double moteur saa yu bëggul nga daan ko doo ko daan. si dafa amul bañ. dafa jafee daan ku jafe daan waaye ma gis ja yow gi muy waxtaan ak yow. Mhm. da koy bëri waaye. Mhm. ndax li Fadam wax damaa bëgg double moteur seetaan diggante mut mujj ak daam seen. Mhm. daam seen a njëkk a dóor. arrière. mujj attaque tëf tëf mu fay mu daw jàll. avant muy jekkas di ko fël na ko ba jéggi. dafa mën a bëri. ça veut mbër la boo xamante ne bii dafa yeewoo. ba pare xel mi ko yàlla jox da ko utiliser. saa yu ñëwee ci làmb l'essentiel lay def dem toogaat. double moteur nag dafa am enjeu bu mag bu nekk ci làmb ji muy bëre dimanche. Mm-hmm. mooy bul fàtte ne double moteur bokk nag ñu njëkk a lukkeeku. Mm-hmm. ci Ndakaaru mm-hmm. ci Ndakaaru bokk ci mbëri. dëgg la. soo gisee mu indiwaat slogan takk brassard. na maay capitaine bi. waaw loolu da ko war a wax ne. loolu la wax tey. nee na maay capitaine nag. loolu war a wane ci côté yëpp nag. mobilisation surtout. surtout waaw côté dafa am ay gone yu fa commencé di génn. coono dafa waaw dafa am ay gone yu fa commencé di génn. yeneen yeneen i gone. te ku ne xam ne làmb dug dabante la. moos. te ñooñu saa yoo am loo xamante ne bi tardé nga ko wala nga échec ko ci sa làmb surtout côté mobilisation dañ lay fay te làmbi léegi dafa am ñaaru ci nekk. Mhm. muy aspect commercial moo ci ëpp doole lépp. Mhm. waaw. menn mbër mu am mbooloo muy bëre ba pare nga daan ak nga daanoo ci am di toog une semaine amu combat amul. bëri amu fi de. Mor Kankang dafa bëre. Hmm. ak Youssou Ndour daanu. waaw yàggut dara. moo njëkk am combat Youssou Ndour te kese bi mu daanoo da ko yokk. Hmm. dëgg la loolu dara ma yëg ko. presse bi hmm. bëre dimanche bi c'est dimanche bi ñu. woon waaw xale bu mën a bëree. mbooloo a bëree ba pare. mën a dafa dëkk ci dëkk boo xamante ne dafa am ñu ngi ko bokkal. caatu yow moo am rivalité bu mag. xam nga tey da ngeen mayaat Double Moteur beneen opportunité. Mhm. Double Moteur dafa raté le train digganteem ak Quench. moo nekkoon le combat. déclic bi. maanaam du grand déclic. Mhm. il a raté le rendez-vous. Mhm. tey il a l'opportunité de bëre ak Modja. Modja bi daan daam seen. Modja bi daan daam seen. donc pour man côté mobilisation duñ ci wax waa Rebeuss dara. Rosa. waaw ah, Roussa ñoom xam nañu. mais maa ngi xalaat double moteur ñëw tëj bëre bi. verrouillé waaw ah, bu ko bëggee tëj mu tëj de moom. waaw bu ko bëggee non loolu moom. loolu moom man foofu kanji kanji tey jii man foofu. yaa ngi ko daa man feneen. ma mu dina ko tëj wala déet waaye dina ko tëj. mais est-ce que ci ci diggante. gis nga li ma lay wax li ma lay may wax nii. li may wax nii Babacar. waaw allez-y Fadam. double moteur li mu bëgg a wane ki daan mujj avec manière la koy mën a amee. bien sûr te loolu li ko mën a may mhm. mooy mu ñëw teg sañ-sañ kaay leen ma wax leen lenn Modou Dia kenn du bëri moom di ko bàyyi mu am sago Double Moteur moo la gën a xam ne mënta daan Modou Dia rek ci Modou Dia mu ànd ak sagoom waaw lii il faut ñu wax ko. loolu dëgg loolu la moom loolu moom Modou Dia kenn du ko daan mu ànd ak sagoom parce que dam yëkkat la chaque jour maa ngi leen di wax ne chaque jour maa ngi leen di wax ne Modou Dia mën na bëri mën na xeex xoolal kaay ma wax leen saa yu àndee xelam amul mbër bu ko mën ci làmb Double Moteur pour mu daan Modou Dia ci combat wu dimanche bii day ñëw jël moot ja teg ko lu mu attanut duwul moteur toll ni mbër yi kenn mënu ko kenn dàq ko bëri original ay waay féexal sab xol original pur jus de fruits original moo leen di wéttali si seen bépp xew-xew ay waay original Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw KPA transfert locale la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégalais yëpp ñu consommer ko.